bis bu dellu si moo neex Uba bis bu dellu si moo neex yàlla na nga ko yàgg yaay di ko fekkee ak wér ak wérle di la ko féetale chaque at bàyyi nga ma nag sama jabar nag ba léegi jëlaguleen ko mu liggéey sama jabar ba tey jëlagu leen ko mu liggéey yéen a ma ko wax. waaw après après di nga jël doléance moo ñu dal. waaw waaw non yow xaaral lii sama doléance la. waaw dañ koy rek sama jabar moom la doon liggéey. day mat day mat day ah, ko Medoune delloo ko mu liggéey Lamine xam nga moom day RTFM. yow xam nga loolu ndax jigéen buy toog ubbi kaamil wax ci lu ko neex moom kese la yow xam nga loolu kooku mooy mati bu yàlla yaa ngi comprendre kooku alxuraan ci xolam la ne te waru la sori non man yàllaa ma beral yàllaa ma beral loxo. alors alors alors dégg ngeen dara beral ma loxo. champion une minute def sànq dafa daw. Medoune son bi ñu dafa daw. jàpp ci. champion. waaw baax na yow Uba son dafa daw. Eh, yow moo si Uba mhm. ma kat la. ah la. kii nitu yàlla moo tax mënul ñàkk lii. barke Serigne Sall te lii ñi fi nekk ñëpp ko yéene du question kenn dafa ñëw pour ngistal wala dara déedéet parce que fii ku fi nekk lépp loo bëgg mën nga ko lijjantil sa bopp moom xam nga nit ñi dañ koy ñëwul parce que waaw dafa baax quoi. Mm. effectivement mm. alors euh, ñu jékki-jékki rek gis benn affiche Modou Lo Siteu mais affiche boo xamante ni bett na ñëpp Zarko Modou Lo Siteu est ce war nañoo bëre nag. eh fii papa ak sax papa ak nijaay sax war lan mooy loolu yow. parce que dañuy liggéey. dañuy famille bi demee Iba Iba boo ko indilee xar bu góor ak bu jigéen yëpp lay rey. waaw kon làmb la dañuy bëre am xaalis ku ci nekk yóbbu sa kër tabax ay gratte-ciel mais combat boobu àdduna moo ko soxla du question Modou wala Balla Gaye Modou wala euh, Modou Lo li mu yore ñëpp ko soxla mm-hmm. mais bu demee ba nangoo gëstu raxam bëgg bëre ak moom loolu chance ci Siteu la. Mm-hmm. Siteu dafa am chance boo xam ne man sax bëggoon naa ko am sama yeneen morom bëgg nañ ko am kon moom bu ko amee dañ koy ñaanal rek xam nga et eh, malgré sama copain lay bëre nag que le meilleur mënu ma si wax dara quoi. dañ naan gis dañ naan gis làmb bu mbokk amee wala dëkkandoo rek dañ naan nii duñ bëree. te ñoom niñ demee. ñooñu ñooñu kon nu ñu suivre làmb làmb ay mbokk yàgg nañ bëree yaa ngi comprendre Mbagnick yàgg na bëre ak Auguste biir Adrien Senghor Auguste naan ko du ma la may dara ndax boo daanee da ngay yóbbu sa kër yaay man sama daanee damay yóbbu sama kër maam mhm. kon donc làmb ay mbokk yàgg nañ bëre man mii di wax ak yow naa sama rax bëre naa ak sama rax moo mm. bokkal ndey ak baay ah nañu mbapat man ak moom Ah kon donc du du affaire de ennemi euh, te champion yàgg na jël ay xale yu ci suuf di leen may chance. kon donc moom gars yi sénégalais bu ñu jël ni kii xam nga am nañ benn lien bu leen boole rek ñu bëgg ne combat bi eh, non non combat bu neex la. mais mais bu ñu bëree malheureusement si te daan ba gars yi duñ jàpp ni ñii dañoo combine comme niñ koy jiñee. waaw yow combine lan ñooñu ay jàmbaar lañ duñu combine. ah mën na nekk de. Siteu du hypocrite Modou Lo du hypocrite duñu ay combine jël xaalis jàmbur ba pare di combine ñooñu xamuñ eh, ñooñu ay jàmbaar lañu ay liggéeykat lañu ah bon dafa leer yow léegi koo faral yow. man <laughs> foofu nekk na yow. man man làmb laa faral làmb. franchement lamb laa laa faral quoi parce que làmb defaat na exploit. dem ba Siteu na gars delluwaat seen xel ki ñu doon wax ni mënul nekk mbër. nan kaañ la comédien la ak yooyu noonu. tey la ko yàlla dimbali ba muy bëri combat royal. kon sénégalais nañ ko nañ ko nañ rek. moom bu fekkee da war a jël yàlla na ko jik bu fekkee dafa war a des ci Modou Lo yàlla na des ci Modou Lo kon donc nañ nañ ñaanal làmb quoi mu gën a yokk mais lii day gën a yokk làmb. roi des waxtaan bi waxtaan bi yëgoon nga ko yow ni làmb ji day am. non ko wax dëgg yàlla mais combat bi bett moom man xamoon naa ni Modou Lo tôt ou tard day bëri Siteu. mais dañ ko musul waxtaanee kenn. Eh, euh, Olof Ndiaye nee na làmb du biir day xëy wasin. wax nga lu wér de. làmb du biir day xëy wasin te combat bu ne mun nañ ko xalaat depuis retour Zarko ba léegi làmb dafa ibbeeku grand yaa ngi may chance booy booy di bëri ñoom mais loolu mooy làmb làmb da ngay xool ki nga xamante ni mi ngi si kaw jël ko ci suuf ñu bëre. yow moom da ngay jëlandoo yow Zarko sikk nga xeetu sikk goo xamante ni. buñ ma joxoon ay buñ ma joxoon ay 17 yooyu noonu. <laughs> <laughs> nekk fi Oumar bu ndaw. gis nañ fi ak sama gaan mais ñu wax Sénégal yëpp nag ah ah combat Reug Reug ak Boy ñaar taxaw na Gaston production moo ko taxawal combat boobu la ñëpp di xaar. ak Siteu mais sa combat yi nag sa combat yu bëri man man coori ji man moom gars leen di këlëb ñoom ñoom ay gullu lañu rek mënuñ dara mais ñële coori ji quoi mais Bébé Diène champion la de eh. ah nee na yow baaba ari kooku boo ko potalee day jooy nee na yow baaba ari nderek la du wax